seen Sène nuyu leen gërëm leen ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ñu doxee seen acte du jour ak avocat yu Ousmane Sonko ca diwaanu Ziguinchor gis nañu nag lañ nga xamante ne moom moo fa jot a xew jëm ci procès bi nga xamante ni nag moom lañ fa amaloon rek ngir daal di xam ndax Ousmane Sonko dina bokk ci liste électorale yi am déet mu mel ni nag ñoom ñoo daal di gagné rek bile procès gannaaw nag plaidoirie bu yàgg ba nga xamante ni rek daal nañ ko fay def kii di juge ba di Sabassy Faye dafa rek a mujjee jox dëgg ñii di avocat yi Ousmane Sonko wax rek ne nañu jox kii di Ousmane Sonko ay listam mu door parrainage am waaye nag li ni mel daal di sax doon loo xamante ni victoire la ñuy wax ci ña nga xamante ne ñoom ñoo di avocat yi Sonko ak kii di Ousmane Sonko bokk na ci jéego yi nga xamante ne daal nañ koy def rek xeexal seenu client ba mu daal di rek am ay liste parrainage a naka noonu nag ñoom avocat ya ba ñu ca pare daal nañu rek dem ca kër. waajur bu jigéen bu Ousmane Sonko daal di koy rendre visite rek ñoom nag ci seen kàddu ñuy wax sax naan ñëw ba diwaanu Ziguinchor rek te jaaruñu gis ko dafay daal di rek doon loo xamante ni duñu ko rafetlu dara waral nag ba ñoom ñu daal di koy rendre visite rek ndaam sax liggéey moom moo leen fàndi woon waaye rek profité nañ ca occasion ba rek daal di rendre visite kii di waajur bu jigéen bu Ousmane Sonko ci noonu ba tey rek verdict ba nga xamante ne daal nañ koy joxe rek ci coowal Ousmane Sonko Sonko dina bokk am du bokk ca liste électorale ya ah, mu mel ni nag avocat yu nguur ga nag daal nañu rek ah, wax ne sax ne kii di juge ba dafa daal di rek ah, wane ne dafa par ci rek parti bu Ousmane Sonko ndax décision ba nga xamante ne daal na koy jël rek mu mel ni daf ko daal di sax dencoon lu yàgg rek ba nga xamante ne bi le ba mu daal di amee nag naam yàgg na lool waaye teewul moom dafa jox dëgg rek ñii di avocat yu Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci maître Dialy Kane bokk rek ci avocat nguur Macky mu ngay rek yëkkati kaddu di wax rek naan kii di juge ba dafa daal di par rek ci la nga xamante ne moom lañ doon amal muy biile procès mu mel ni ñoom avocat nguur ba nag bàyyiwuñu dara léegi rek ñu ngay daal di topp rek dossier ba ba léegi rek jàpp la nga xamante ni sax moom la DGE daal di décidé woon ak la cour suprême arrêté woon moom rek moom moo war a am ci noonu nag mu mel ni ñoom bàyyiwuñu dara daañu rek topp mbir ma ci rek verdict ba nga xamante xamante ne kii di juge ba daal dina koy joxe ñu daal di wax ci mandataire bu Ousmane Sonko di Ayib Daffé moom nag moo demoon sax ca DGE doon jëli rek liste parrainage mu mel ni nag moom dañ ko daal di gàntaloon li ni mel sax ba mu daal di coow ak yéeg ak wàcc ci wàllub yoon ci noonu nag daal nay joxe rek yenn ci ay détails jëm ci fiche parrainage muy wax sax naan ñii di avocat ya daal nañuy liggéey rek liggéey bu mucc ayib te ba léegi rek bàyyiwuñu ngir rek daal daal di récupérer yi les fiches nga xamante ni sax ba léegi jotaguñ ko waaye teewul ah, ñii di avocat ñoom am na ab liggéey bu solo boo xamante ne ah, ñu nga ko cay def rek ngir récupérer lii di fiche parrainage ah, kii di Ousmane Sonko daal di tàmbale rek door la nga xamante ne moom moo di ay parrainage am waaye nag li des mooy conseil constitutionnel daal di valider rek bi les candidature moom Ayib Daffé nag mu jàpp a ñii di conseil constitutionnel rek ñoom ñoo daal di des ma ngir Ousmane Sonko day bokk am déet waaye nag lu jiitu loolu muy daal di am rek ay fiche parrainage mu mel ni kii di juge Sabassi Faye daal di nay rek jox dëgg ña nga xamante ne ñoom ñoo di avocat yu Ousmane Sonko ca parrainage la ñuy wax ba léegi rek kii di Amadou Ba di premier ministre ba nopp rek doon ka nga xamante ne moom la benn bokk yaakaar daal di jiital rek ngir mu daal di doon seenu mbër ci l' élection présidentielle ñuy wax sax yenn ci ay collecte parrainage a baaxul dara bokk na ca diwaanu Parcelles Assainies ka nga xamante ni sax jàpp nañ ne moom Amadou Ba bu ko bëggee gañ rek faaw mu génn ca bureau yë daal di rek bouger maanaam dugg ca biir ñi ñax ngir rek daal di utub parrainage ca rek diwaanam loolu nag mu daal di doon loo xamante ni rek mu ngi ñeel collecte parrainage ci yile élection wax ci divorce bu Pastef ak taxawu Sénégal mu mel ni daal di nañ koy acté rek ni ki tey gannaaw nag rentrée parlementaire ba ñu daal di amaloon rek tey lu ko jiitu sax Pastef ak yeewi askan wi amaloon nañ rek ab réunion loolu nag ca siège bu PUR sax lañ ko daal di amale waaye nag gisuñu ca benn député bu taxawu Sénégal ci loolu nag mu mel ni nag ñoom député sax daal nañ rek retiré wu ci li ni mel mu mel ni. Ah, ah, ah, daal dinañuy rek constaté ne lii a Pastef ak taxaw Sénégal daal dinañuy rek tàggoo loolu nag mu daal di doon loo xamante ni mu nga doon xeeñ sax waaye ni ki tey mu mel ni daal dinay rek confirmé wu gannaaw ba nga xamante ni sax rentrée parlementaire ba ak réunion yi nga xamante ne daal nañ ko cay amal gisuñu ci benn député bu taxaw Sénégal ci leneen la ñuy wax muy situation bu Adji Sarr mu mel ni nag ñu nga doon wax sax wàllub tentative de suicide jëm ci moom Adji Sarr kii di Ngoola Diva nag daal na koy confirmer rek gannaaw ab audio bu daal di fuité rek moom kàddu ya nga xamante ni Adji Sarr mu nga ko ca daal di yëkkati rek ñuy wax sax a garde ya ñoom ñoo daal di wax rek ne moom amatul fu mu daal di nekk waral nag a coow la daal di tàmbale rek mu mel ni ay problème sax lay wax daal nay rek kii di Adji Sarr gannaaw ba nga xamante ni sax tentative de suicide bañ ci doon wax ca ojo ba nga xamante ne daal dinay fuité ci leneen la ñuy wax kii di Dip Doundou Guiss Fata El Presidente ak kii di Thione Niang ñoom nag ni ki tey ñu nga woon foofa ca Maison Blanche ca États-Unis mu mel ni nag ab boo xamante ni sax daal nañ koy teg mu daal di jëm ci Give One Project daal di doon loo xamante ni teew na ci lu toll rek ci ya fanweeri dëkk ak ñeent mu mel ni nag ñoom fii ci diwaanu Sénégal bokkoon na rek ca Dip Doundou Guiss Idriss Fata el présidente ak kii di Thione Niang ñu daal di représenté woon rek li ni mel amaloon rek ab réunion ci bile réunion nag yenn ci ay projet yoo xamante ni rek projet de développement seex la ñuy wax daal di rek doon loo xamante ni dafay daal di suqali ay réew mu doon waxtaan wu yaatu boo xamante ni rek seqoon nañ ko ak ay kilifa foofa ci Maison Blanche ci diwaanu États-Unis bile programme nag ci fàttali ñu daal di koy dippe Give One Project mu daal di teew rek yi kaawteef eh, ca diwaanu Vélingara lii di taw ba nag ak jëye nga xamante ne dal na ko cay def rek bokk na ca dënn ba nga xamante ne moom moo daal di faat rek Samba Mballo daal di amoon rek lu toll ci cinquante ans moom nag gannaaw mu daal di jóge rek ci ab réunion ci la rek taw ba dënn ya nga xamante ne fooroon lool moom nag moom moo ko daal di faat rek moom Samba Mballo mu daal di doon jëye ju doy waar am foofa ca diwaanu Vélingara. bu jogee jógee diwaanu Vélingara Pikine la ñu jëm kii nag ab communicateur traditionnel moom lañu daal di teg loxo rek ci viol ci ab xale bu góor rek bu am lu toll ci fukki at ak ñett moom nag gannaaw guddi mu daal di rek woo xale ba daal di koy yónni euh, boisson ci boutique ba naka noonu nag ba xale ba demee la daal di jàpp loxoom rek yóbbu ko ci ab ruq ca la daal di àgg ci kawam gannaaw nag ba nga xamante ne moom xale ba daal di nay ñibbi rek ca këram ay waajuram daal di constaté rek. nag li ni mel la ñu daal di defub plainte rek dem ca diwaanu police l'enquête ba nga xamante ne daal na ko ci mëne rek ñu daal di teg loxo moom communicateur traditionnel bi nga xamante ni sax moom moo def jëf ji ni mel la xale bu góor bi am lu toll ci fukki at ak ñett tàggat yaram la ñu jeexalee wax ci kaddu ya nga xamante ne kii di a Nampalys Mendy di milieu terrain bu équipe nationale daal dina koy wax rek loolu nag mu ngi jëm ci concurrence ba nga xamante ne daal daal di jàpp ne bi les concurrence dafay daal di doon rek bénédiction ci équipe bi rek gannaaw ba nga xamante ni sax place bu ca nekk rek dal nañ cay am jour bu baax lool mu jàpp sax ne li ni mel dafay daal di wane rek capacité ak qualité joueur yi nga xamante ne daal nañ koy am ci équipe nationale ca tañeer ba la ñuy des ba tey ak préparation yi ñuy amal rek foofa ca diwaanu France ca lance mu mel ni nag famille feu Pape Bouba Diop ñëwoon nañ rek rendre leen visite ñoom jour yi ca tañeer ba bokk na ci soxnaam ak ñaari doomam ci noonu nag ñoom ak mayo ba nga xamante ne daal nañ a dédicacé rek bi les familles jour bu ca nekk rek daal di cay signé mu daal di doon symbole bu ñu daal di rek jébbal ña nga xamante ne ñoom ñoo di famille feu Pape Bouba Diop ma nga xamante ne ñëwoon nañ rek rendre leen visite foofa ca diwaanu France ca Lens ba ñuy préparé wu rek ngir seen match bi war a dox seen diggante ak ñii di Cameroun Sadio Mané gannaaw mu teew ca tirage. ci Coupe d'Afrique des Nations mu mel ni nag daal nay dévoilé équipe ba nga xamante ne moom la bëgg am rek final la loolu nag bokk na ci pays hôte muy ña nga xamante ni sax ñoom ñoo daal di organiser rek bile CAN muy waa Côte d'Ivoire ñoom nag la Sadio Mané bëgg a dajal rek ca final CAN bay am ca Côte d'Ivoire ñu daal di wax ci joueurs yi nga xamante ne ñoom la ñu gën a fay ci àdduna bi yëpp kii di Cristiano Ronaldo nag daal nay jël première place ba bokk na rek ci koppar yu takku ya nga xamante ne ñu nga koy fay rek foofa ci Arabie Saoudite mu na ni nag daal nay détrôné kii di Kylian Mbappé deuxième position nag ñu dal di am Messi Neymar daal di ñëw Mbappé dal di ca cay topp Karim Benzema ak Erling Haaland Mohamed Salah ak Sadio Mané bokk tamit ci course ba mu doon joueur yi nga xamante ne ñoom lañu gën a fay rek ci àdduna bi waaye nag jamono ji kii di Cristiano Ronaldo moom moo nekk ca bopp ba amee internaute yi Buzz seen di leen dig daje